simile ñi ngi agressé nit ñi ak di leen rey rek tribune yéene kaay ne nguur gi day mënul ci agresseur yi dara maar tey taali maa la wax li parce que yow xoolal ma fitna gi nga xam ni kon moom lañ ci nimiku nii wàllu violence ba Sarr gee ca banlieue ba am na ca genn ndaw soo xam ne dañu ko agressé rey ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun baaka la ko jam roxee jàll la doon wuyoo te ca Kër Massar goo gee wuyu di mbirum banditisme ga saay bu ñu xëyee kon muy gën di yaatu xoolal leen ma condition ya nga xam ne kon moo fa ne moo tax mbir ma kon di gën a yaatu yow courant na leen rey amul ca bërëb ba ndool goo xam ne tamit ni mu ko nañ ko ci yenn ci ay quartier yu lëndëm yoo xam ne la la fi xamagul daal fan lay teg tànkam ngir dakkal bakkan ñi nga xam ne kon ñu ngi rot ci wàllum agression yi moo ne ñàkkub kaaraange googee lenn dong lay indi de ñàkk développement réew mënu caa développé suñu réew bi nag inondation yi sonal nañu le pays au quotidien ne ku leen ko wax doo leen ko gëm de waaye fa ñu war a yóbbu nit ñi nga xam ne maanaam danoo lorule waaw bërëb yooyu kee ci ndox la dëju maar tey taali laa ilaha illa laa maa la wax lii de déedéet maanaam fàggandikoo tax kon ñu taxawal ko ngir nit ña kon bu ñu dund ci ay jafe-jafe Demba Jorog Mbalax ak ña mu àndal ca réew mi quotidien woo na sénégalais yàpp ñu tëjji kon seen i gëdde bu baax a baax sax ci alal ji nga xam ne kon jot nañ koo dajale nee na xool leen Macky Sall ak gouvernement ngam ci alal ji nga xam ne kon dajale nañ ko ngir jox ko kon sinistré yi balaa kon mbir mee nax saa yi le pays au quotidien yamu ca ndaxte nee na groupe ci ay millions ko premier ministre ba Abdoul Mbaye le pays ne yi ak Zik FM lu ñu war a la li suñu naataangooy def lu a rafetlu la parce que xam nañu kon xaalisu yàlla ba ñu ngi ko doon dégg waaw ci Zik FM maa la wax li tribune yéene kaay ne ñun dee duñu sonn mukk di wax ak a waxaat ne seen TV ak Zik FM gii lañ doon def kon am nañ ko ndam waaw waaw parce que mbir mi waajaluñu ko préparé wuñu ko dañoo jékki-jékki ne bëret spontané yi te kon la àndal te duñu sonn mukk di wax tamit mbégte gi nga xam ni kon am nañ ko ci sénégalais yi ginnaaw wuyu si bi nga ni kon wuyu si ko ci suñu woote ba woote ñu wuyu la goo xam ni kon moom la ñu gisoon file sénégalais yi daal di dikk kon ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo loru kon ca mbënn ma waroon ngaa dikk rek yow ca buntu immeuble tey fii ba mën a gis mbooloo mi nga xam ni kon dikk nañ fi altabek mbaax goo xam ni kon sénégalais yi ànd nañoo ak moom ngir jàppale ñi nga xam ni kon ñoo loru ca mbënn ma yéene kaay gi ne waaye nag cay cay yàlla cay sénégal jafe na ngir nga def fi lu baax ba nuppi ñu fay la ko déedéet tey dañ cay boole di yàq sa der sax maa la wax lii seen action ci boppam lu ëpp ñetti téeméer ak juróom benn ci ay cent six millions dajale ñu ko ñaari téeméeri million ñu jébbal ko nguurug Sénégal gi juróom fukki million ñu jox ko Croix Rouge fanweeri million ñu jox ko Inondo Action bu Serigne Mansour Sy Djamil lu ëpp cent ci ay matériel li des ca xaalis boobu ñu fas yéene koo kon social ba dimbali kon nit ñi nga xam ne dañoo sonn te lii ñu leen wax ni yëpp weddi gis bokku ca vérifiable Cour des comptes bi boppam bind nañ ko kon ab leetaar ngir mu bàyyi ca mbir ma kon kët tribune yéene ne tàyyi duñ ca am ndam dañ cay échec soxor cam Macky day dindi na Sénat ba ndax wàllum inondation yo Jean Paul Dias ci Le Quotidien yéen ne inondation yi nga xam ne kon moom la ñu taafantaloo ba dindi fi Sénat bii du dëgg du yoon ay waxu picc laaj ay waxu kasaw-kasaw yéen ma jambal jàngi ne Jean Paul Dias day xëpp na ca cere ja kon suuf waaw waaw bàyyi Barthélémy Dias ne Amérique nga ne yenn saa yi day am ay inondation yoo xam ne mooy gën a tar suñu bës foof te teewul di banqaa su réew lan mooy ndeyu ñu fiy dindi Sénat bi bi ci boppam am na fi place man Sampol Dias ko wax waaw la ñu war a ko kay mooy yenn ci ay yàq yoo xam ne kon ni mi ko nañu ko ci alalu askan bi yenn ci ay agence yoo xam ne la fay dem te doomu dërëm kenn xamul nu mu yenn ci ay ambassade yoo xam ne la fay dem te doomu dërëm kenn xamul nu mu boo ko xaymaa juróom fukki milliards ma koy lekkal askan wi di trésor public ba Sénat bi am na fi place am laa wax l'office sénégalais yàlla xam ba tax nag mu yónni kon waa M23 négocier ji ak waa parti démocratique sénégalais Papa Diop njiital Sénat bi ne dindi bi nga xam ne kon dindi nañ ko fi Sénat bi sori na lool saafara kon wàllum inondation yi ah maa la wax li parce que yow Sénat bi ci boppam la muy dunde at mi yëpp juróom-ñetti milliards kese la te ñaari milliards ak genn wàllu yëpp dépensé nañu ko laas ne ña nga xam ne nag ñooy liggéeye ca Sénat googee fi ne nii seen bopp yi daa ëllër ko jaaxle nañu tax na nag kon wut nañu kon ab avocat waa Gambie kay war a wut avocat ah enquête yéene ne yow réew moo xam ne ci fitna la ñuy dund la ca Gàmbi gee askan wa seen bopp yaa ëllërñiku Yaya Jammeh ngi ne ca liet naa la jóge mujj def boppam magum buur ab monarque maa la wax li Yaya Jammeh daal daanaka ba mu ak léegi loo ëpp téeméer ci ay soldat ak ay civil rey nañu leen ci fukki at ak juróom-ñett allahu akbar rey yoo yee nga xam ni kon ñu ngi koy rey nit ñi ca Gàmbi Ousa Diallo waykat la nee na c'est normal i la ilaha illallah ah maa la ko wax bàyyi aju sa ci Walf Grand Place ne mais parce que Gàmbi loolee seen la ci yoon lañ nekk ak seen dëgg tribune yéene kaay ne Ousa dee ngay jàppale xarit Bougane ne bàyyi leen Yaya mii ngeen tam kon dëmm i directe info ne coow li am ci diggante Gambie Sénégal Oussa Diallo day taxaw na ngir dox ci kon ay tànk jàmm maanaam rataxalkat ba médiateur ba fa ñu war a wut médiateur kay mooy ARTP libération yéene kay ne ndaataatalax gundaa ndaat noos gu réy gi xam ne moom la ñu ni mu ko ci kër googee jéggi na dayo ah bambulaa goo xam ni yow waa inspection générale de ab rapport 2007 waa xam ne kon palais la ñuy liggéeye président de la confirmé wuñ ko maa la wax lii ak primature gaye premier ministre ba ne ak ministère communication waa inspection générale d'état ña doon càmbar kon mbir ma la leen gën a mitti dëgg mooy assistante directeur ba maanaam secrétaire ba xëyam mu njëkk weer wu dee benn million ak genn wàll un million cinq cent lañ koy fay allahu akbar dem naa ca lamb jë suñu lamb ne Aziz Ndiaye day taxawal na ñetti combat yu neex ama balde ama neex i la grosse Modou Anta i bàyyi ma njoon guy gi wala bàyyi ma njoon papa saw na nee na guy gi d'accord na Moussa Sow d'accord na kon léegi man Assis Ndiaye maa ko teree neex oh <laughs> alaaji lambi maa ko fi doon laaj ngir am ci millions yi ah léegi poste secrétaire laay wut loolu day bu ma ko amoon yéen waa Zik FM li ngeen ma jot a jox kas néew bu ma koy indi du ma yegg si ci rajo bi ca ginnaaw risis gee laay taxaw woolu borom rajo bi moom mu ñëw ma ne ko yaa ma joxoon lii fabal waaye day kon yàlla na ma jikk liñ naan awa na la jikk bu la jigee loo yootu jot ca awa na la jikk alaaji tëjal